di len wax ngeen abonné ci chaîne bi di loxoy du monde tv té bés cloche de notification bi ngeex ngeen di mëna jot seeni vidéo à temps réel waye tam mën ngeen ñu bayil seen xalaat ci commentaire bi ndax loxoy du monde tv yeen la fi nekkal ngeex di jaamu seeni soxla السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yenn mbokk yi yenn xarit yi yéen soppe yi maa ngi leen di siyaara te di leen yëgal ne maa ngi ànd ak guddi ak bëccëg fu ngeen manti tollu léegi ma bëggoon a am waxtaan bu ma bëgg a def ci xew-xewu réew mi léegi bugguma yàgg ak yéen waaye bugga naa leen indi ay kelk tontu dangeen ma laaj ne mbiru usmaan Sonko bi passé Casamance demb ci 12 deux vingt trois gis naa ñu bari di fecc di bàkku ne gañe nañu gañe nañu maa ngi fàttaliku bi ma nekk ak suma waajur yi maanaam suma ndey ak suma papa ak suma nijaay ak suma maam ya ba ma nekk su ma jay jok May Fall ak Ousmane Mbeng ak njogu Fay ak isa Diop ñom ñoñu yep suma jay lañu ak suma papa ak suma lepp dañ ma bu ngeen gisee gurubu golo ñu dugg ci sa tool di lekk la fa nekk mbul naagu dang leen di dàq ñu làqu fekk ñu ngay préparé bu ñu ñëwee ci sa gannaaw rekk la yàq lépp pour ma leera leen mooy ne bu leen bakku kontaan te li nga xam ne lii mënula deñ yàlla moo ko waxal boppam mu ni jaam bu rëyee kenn nit dafa mel ni moom dafa rëy adduna bi yépp Macky Sall nag ak ñoñam yi ak nitam yi ñu nekk di rey nit ñi kenn xamul lim bi ñaata lañu yàlla rekk a ko xam am na ñoo xam ne ñii déclaré nañu leen ak ñoo xam ne ñi kenn déclaré leen kon yàlla moo xam ñaata lañu toll te nit ku nekk boo ko reyee dafa mel ni àddina nga rey ñaata àdduna la Macky Sall la rey ak waa këram ànd ak justice bu bon bi nga xam ne ñoom boo leen joxee lu ñuy lekk waaye nag ci biir justice am nañu jub ak am nañu honnête mbokk yi li ma leen nar a yegal ne Macky mi li ko mën a toqloo na ngeen ko def comme ni ñuy defee chef de l'État yi am na chef de l'État français yu ñu fi noto euh, euh, nommé woon ñu nekk ci nguur ga ñaata fan yàlla jël seen bakkan maa ngi koy yëgal boobule wax du Ba dinaa dellu ci Macky Sall ndax moo tax may wax wax bii tey Amadou baax mu ngi ci complot loo xam ne lii foogu leen ko yaakaaru leen ko te xamu leen ko xeej na xeej na waa PDS da may yem man de bu ma gisoon Abdoulaye Wade dinaa ko wax ñaari kaddu ba nga nekk nekkagul dara ay góor di dimbali ngoon ak bëccëg man mii di wax ci la bokk Badara Ñang yal na ko yàlla xaral àjjana Idrissa Seck xam na Badara Ñang Abdoulaye Wade xam nañu Badara Ñang te mu installé woon ci Côte ba mu ñëwee Paris yéen xale yu góor yi àndoon ak man xam ngeen ne maa logé ci résidence bu ñu wax Harmonie mu wax ñu waxu Abdoulaye wad bi mu tollee diggante ñun ñu def ak suma xart yu nekk ci Sénégal ñoo ngi may dégg ñu def lañu mëna def ñu yónn ko Abdoulaye wad pour me régler problème fekk buru Qatar bur ba nekkoon Qatar te doom bi def ko coup d'état ñoo ñoo doon dimbali Abdoulaye Wade am benn colonelu français mu nekk jege Abdoulaye Wade lu ñu man ci lu baax ñu dimbali Abdoulaye Wade waaye Abdoulaye Wade bokk na ci ñi yàq Sénégal musiba yi ak njaaxum yi ak xeex yi li ci ëpp doole moo ko indi li tam Abdullahi dugal Abdoulaye Wade ci bir waxtan bi deal bi nga xamne bi mom lañuy def ci lañu bok Karim Wade ak Amadou bax umpante wuñu Karim Wade Amadou bax ñu ngi waxante ñu ngi nas ñu ne kat ñoo fi nekkal pour européen yi ak américain yi xaw ma kan mooy booyu kay ci ñoom ñaar xaw ma Amadou mooy booyu Karim xaw ma Karim mooy booyu amadu Amadou waaye ñoom ñaar ñoo ngi def seen deal ci waa PDS xam nañu ko waaye ñoo ngi leen di xaar ci turnaal bi fa tabarakallah léegi li tax ma ne bu fecc yéen nitu Sénégal nitu yàlla yi nit ñu jub ñi na xam ne kii dëgg bi ñu leen jox waaw mooy ne dañu nekk ci plan di pexe yi naka la ñuy sàcce élection yi ñu ngi contact européen yi ñu ngi contact yeneen nit ci bitim réew pour ñu def seen plan ak seen maguy léegi yi ñuy def nii yëpp kenn tiitalu leen ci opposant yi ku dul Ousmane Sonko ndax Ousmane Sonko li nekk ci xelam ak ruuxam ak mebetam mooy sénégalais bu nekk rek na am wàllam sénégalais bu nekk na am ciram sénégalais bu nekk na tedd sénégalais bu nekk na am fu muy dakk ak lu ñuy jànge na liggéey hôpital ak ay école na liggéey route yi na defal relation gu Sénégal ak bitim réew maanaam jàmm la ci yene jàmm ci kaw jàmm salaamun ala salaam waaw loolu usmaan Ousmane soxle te ñu xam ne ñoom warkat lañu saay-saay lañu bandi lañu wuyu lañu assaariqu wa saariqa sàcckat bu góor beeg bu jigéen bi il faut ngeen lappidi leen bu nekkee ne sax man ngeen fermer seen bët ñu dog seen loxo yi bu ñu sàccate ñu dog seen tànk yi danañ dem sax ba dog bakken yi ak nopp yi ndax nit ku jubati kenn mënu ko adressé fen lu dul seytaani la loolu mu nekk ci ñoom donc dañu ne xaara dañu feebe labaje ko jaxase ko waaye yàlla mi uppal doole incha allah inna kaydahum zailun seen pexe bi day dañ day yàqu yéen gaañi ñi Alioune Sall oustaz maa ngi leen di diklu bu ngeen di waxtaan fa tabarakallah kontaan naa ci yéen yaakaaroon naa ne gaa baax ñe ñëpp jeex nañu al mujahiduuna fi sabilillah xeexkat ya ndekete ñu mel ni ñoom des nañu fi waaw waaw moo tax keroog ma dugal tur Yunus baaba Yunus Baba ndeysaan fa tabarakallah jax moomu du def ko buggoon ndeysaan même bi jax moomu du nekk ci kaso mu ngi bugg a Yunus Baba léegi atte bii ngeen may laaj duma ci fecc duma ci naan kafe ndax kii Macky tànk teraluñu ko yew tànk yi yew loxo yi summi ko yaramu neen du tax mu def marche arrière moo tax ñu mel ni man ñu nar ko wan boppam wan ko boppam keroog wax naa ne Macky sa bakken boo bàyyi Ousmane sonk ci lay yem xam naa ni ñi xamul ñu ngay reex ñu ngay wax day wax rek ndax am na doomi xaram yoo xam ñoo ngi ànd ak moom te xam naa leen Macky bu muusoo nday rikki léegi bàyyi dof yi muy def ñu mën ko atte ci ñimu mu rey xaalis bi alalu àdduna la kullu man alayha faanin واو ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام واو واي بكن بكن كم دفا يرو يرقل فتبارك الله فتبارك الله يالا بندكو تمورا ويزي يوم القيامة nga dogalé ko bom ko nga yaakaar ya ci nek nax nga sa bop Macky di nga am fitnatu dunya wa fitnatul axira di nga am mbugalu àdduna ak bu alaxira waaye nag bu àdduna bi yal naa ci bokk ci ñi traité ak ñi lay mbugal ak gaa yi yëpp ku ne participer waaw léegi ma dellu tuuti rek ci mbiru Amadou Ba yéen waa PDS yéen ñu baax ñi ci biir PDS moytu leen ci li ñu leen di indi ne Amadou baax na composé Karim Wade waaw pour ñu libérer alalu réew mi feneen duñ leen ko nangu tey te duñ ko nangu ëllëg bu ngeen ko nar def ñu faagaagal leen même élection sax dangeen ci warul a bokk léegi ndax ki rey rey bu doy waar ba rey na suma benni mbokk bu ñoo Mamadou Diop mooy Abdoulaye Wade ci l'Obélisque xam ngeen li tax ma miin place l'Obélisque boobule xam ngeen ko nda Yunus Baba foofu la daan installé di waaraate waaw ndax jak saaw bi ñu ko jëlee foofu des bayaan jakarlo ak train foyer foofu la Yunus Baba daan istali di woote di jàngale moo tax place boobu ma miin ko Abdoulaye Wade nag dafa am ñu ñu tax mu rey leen foofule bi ñu leen reyee ndeysaan mu yaakaar ni caaxaan la fox la bu muuso ndey dem ba ci fa àdduna jeex mu ndab fi doomam ku ñu wax Karim Wade ndax am na ñoo xam ne ñi dañu mel ni man dañoo am een te duñu bàyyi ku mel ni Karim Wade te seen doom yi ñu rey leen kooku nag moo walbatiku li di complot ak am Amadou Ba guinéen bi keroog man maa ngi wax wax bi neexul ñu bari maa leen koy waatal kii bu mu ñëwee Sénégal xamul li muy def mu walbatiku ci marché bi def commerçant bonul jaay banaan ak clémentine ak orange boole ci ay pom daan na ci am takku gert ak liñ tuddee sedem yooyu yëpp daan na ko jaay boole ci léegi nag ay dàll ak yeneen ak yeneen mbiram la tey mu nekk ne Sénégalais la di komplo koo xam ne ki buñ la waxee coosaanam nga yéemu waaw ana Viviane Wade ah yaa jur Karim fa tabarakallah yaa ko juran ah? yoo Abdoulaye Wade fa tabarakallah ma ne ban histoire moo nekkoon diggante Dansokho ak Abdoulaye Wade histoire nekkoon na fa ndeysaan bugguma xale yi gastu foofule waaye bi nga xam ne bii Viviane kalam doyal na ci Abdoulaye Wade bu amuloon ay kilifa Dansokho du ko bàyyi mu dellu moytu leen seen bopp li ñu xam ci réew mi dafa bari waaw Abdoulaye Wade nit ku nekk dafa am métier séeréer lebu mooy lébu yi mooy séeréer yi béy la ñu xamoon ak napp béy ak napp waaye Abdoulaye Wade sa métier bi da ko sàggane waaw tëggum ndaal la moom lañ tuddee ipriq ci arab mooy ndaal yi ngeen doon tabax sa maam yi kon boo jàngee ba mën yore réew da ci war a sant yàlla bul jaxase réew mi waaw waaye mag yi bi léegi ñoo lay xool ne yow mii sa métier ak sa métier maam ak sa baay tabaxkatu ndaal lañ woon fu ñuy def ndox waaye loolu taxul ñu jóg léegi tax ngeen ñu rey ay doomu aadama nga forme benn nit dundal ko yafal ko comme ni ñu yafale xar-xar bi walbatiku mbakk mooy Macky Sall léegi gaa ñi waxu naan duma du yàgg ma récapitule li nga xam ne moom laa wax ma récapitule mooy ne combat bi léegi la door a commencé sénégalais sénégalaise na ngeen préparé xeex benn réew du baax te guerre amu fa Macky moo ñu déclaré guerre yàq réew mi rey nit ñi taj nit ñi kon bu ñu ko bàyyi mu demee noonu le ko mel ni yeew ko tiim ko di ko caw matee ak ngoon ba li tax mu def lii mu ricc ko te mu nekk nadaamatul yaqiin ricc bu dëggu ci moom waaye bàyyi makki mu dem ñii rek ñàkk jom ñàkk fulla ak fayda di ñu indil benn guinéen ne moom lay présenté ma dem ci Kaba Kaba war nga sant ki ñu wax Ousmane Tanor Dieng war nga ko ñaanal fa mu toll malgré posé na Macky Sall la question ak Moustapha Niass fan la usman nekk waaye Kaba bi ay nit jógee nar la jële ci adduna bi yàlla ak Ousmane moo ci def loxom يالا دفتي يرماند دغنان يو لين دفتي مينستر دي لانتريير بور بارابار اليكسيون يي لو نين دف خام نانيو كو يالا موم لب لا خام عالم الغيب والشهاده الله يعلم من خلق وهو اللطيف القبير وخبير بما تعملون خبير خبير يلا موم دا فا دنج امب بري غس واو wow. yàlla dafa bari li muy gastu lu ngeen def xam na ko bi mu bindee lépp la xam waaye nag mu topp nag mu jàngal aadama li nga xam ne li moo war ci doomu aadama fa allama al asmaa kullaha waaye nag bu ñu waxee du lépp la ko jàngal ndax doomu aadama dafa am fu mu war yem fi mu war a yem loolu la ko jàngal waaye ñi déggul alquran dañu yaakaar lépp lu nekk ci àdduna ak alaxira aadama xam na ko déedéet déedéet ndax min turabin ila turabin déedéet suuf dafa landam suuf dafa landam te doomu aadama suuf la kon yàlla am na li mu ko xamal am na li mu ko bañ a xamal legi lu ngeen pay xam nañu ko ndax yeen suuf ngeen comme ñun waaw tajor moy xam tajor miniger moy xam miniger doomu adama ngeen il faut ñu xam li ngeen di def sen plan yi ngeen di def yeb yak nañu ko amna na ñu nekk ci PDS ñu ngay du jagar jagar yi lu ngeen wax ak ñi ngeen di wax yeb yak nañu ko waaye ni ñu yàlla may gudde fan ak wér gu yaram ba ci kanam incha allah di ngeen xam ne li ñu doon wax dëgg la léegi Macky nga ni doo dellu ganaaw bàyyi Ousmane moo tax ma ne maa ngi sant di gërëm Cheikh Ibrahima Dramé du ma ko ñàkk sant mukk ndax ndeysaan am na ay kàddu mu génne woon mu ne kulaal Ousmane sanku sanku ku ko jege sanku ku ko xool sanku pexe bu ngeen ko pexe ka koy def day sanku moo tax cheikh li ñu tudde cheikh mu ngi ci yow cheikh li muy firi mooy xam boo xamee ba pare ngay dimbalee boo xamee ba pare nga teg sa xam-xam ci dëgg yow bula la adduna bi xamoon tey fii ba masariqul maghrib dinañ ñëw ci yow di ñaan lu ci yow ndax Sénégal dey gannaaw mag ya paase gastu na xam naa mais ku mel ni yow ci xool surtout ci kurus ci ñaan yàlla mooy dogal waaye xam naa li nga nekk dëgg la maa ngi konte di la ñaanal gudd fan ak gu yaram ti ma di la ñaan itam nga di ñu ñaanal di ñaanal waa réew mi ma di la denk Ousmane nga di ko ñaanal ak ñu baax ñépp surtout nga boole ci ñi def live ci bitim réew mooy diaspora bi Ousmane nitu ñëpp la Ousmane dafa ñëw pour incha allah mu mel ni ñoom Thomas Sankara ñoom Lumumba gaañu baax ñooñu yëpp ñoom Mamadou Diakh et cetera et cetera bala may jàlli am na xale yoo xam ne dañu wax keroog ci man ku mel ni booy Malika te mu nekk Brésil ah booy Malika kontaan naa ci yow fa tabarakallah yow ku baax nga yéen ñëpp dangeen baax yéen ñiy waxtaan ci diaspora bi yéen yëpp maa ngi ñaan yàlla ni yàlla jàppale leen te yàlla ni yàlla mu tas seen yaakaar ba ngeen jël seen avion yi ngeen ñubbi réew ma bokk ci développement réew ma booy Malika xam naa bu ñu waxtaanee. ñu ñoo bokk ay nit maam ndax séeréer lébu ñu moom suñu njangal moom suñu nditax moom suñu malik ak ñoom deen ñëw ci suñu Dakar yépp ñu bokk ko kot ba yépp ñu bokk ko kon nag yaakaar na ne booy malika yen ñu bax ngeen jambar ngeen kontaan naa ci yow jot message bi am na ñu baax ñu ma ko jotal incha allah suma xel moo ngi ci yéen ñëpp yéen nekk di waxtaan yéen a bokk yoon bokk ndey bokk a baay waaye bu ngeen gisee loo xam day yàq seen réew ngeen jóg taxaw xeex ko ci ngeen nekkee fa tabarakallah gannaaw loolu le yéen yi ngeen xam ne yéen a yore diini bi moy ñu bax ñi waxuma ñañu tuddé kilifa ay khalifa généraux ñooñu considéré wu ma leen ma ci ñom ndax ku nek fa nga tok ci sa dër xamna lo togué li ngay def kon njit njit même xalé bu ndaw mëna nek njit nek ci dëgg rek e élection yi inshallah Ousmane Sonko Ousmane Sonko incha allah day bokk ci élection yi ñiy def pexe nañu continuer def seen pexe bay ba lay ñëw ci ñoom ñëw ci ñoom gis nga ñoo ngi nax seen bopp parce que xam naa ne Sénégal dem ba mooy Sénégal lu tey population bi dinañu génn ni teg leen ci seen yoon la war ci ñoom ñu def leen ko. kon gaañu baax ñi ki doon wax ak yeen mooy Cheikh Ousmane Pouye Tadjidine dama ne na ngeen préparé jonkan ñoo ngay def seen pexe guddi ñu naan seen café reexoo tàppante classe ñoom Farba Ngom ak doom joo xam ne ji waxoon naa mbiram mooy doomu nit ku bon kaw ndeysaan dañu trompe yaay ja ka trompe yaay ja di yekk ci yekk ci miir ba mu daanu muy Alaaji juuf incha allah dinaa leen defal boobule film benn bés ba ngeen xam même ñaata weer la def ci biiru ndeyam dinaa leen ko yegal waaw mu ne Bur Kumba Ndoofeen juuf doom la ci moom set la ci moom aka mën a fen Kumba Ndoofeen Diouf du gëbal ma sa papa ba muy daanu ci miir ba yekk nañu ko dafa mel ni am na ñu nekk Fatick am na ñu doom bu nekk am nekk président waaw Fatick dalal nit yi nag bi yàgg ngay kilo ci soxna si ba kooku am joom doom doom ja mujjee nekk président àddina moo doy waar kon gaañu baax ni ku leen bugg laa et mu leen tiit mu leen jaaxle toujours benn kàddu laa yore yàlla rek moo ko mën a walbati Ousmane day bokk ci élection te bu neexee yàlla lépp dina sotti yéen nag opposant yi bu ngeen muusee bu leen réeroo même bu nekkee ndok am na ci seen diggante na ngeen jéem a rafetal ku ma ci man woo dinaa la woo pour ngeen mën a ànd nekk benn te ngeen di bañ a def ay plan ci kaw ñeneen ñi yéen xam ngeen ne bu ngeen yaakaar ne dañuy limine Ousmane ngeen dem ngeen gañe dangeen di nax seen bopp band yi nekk seen kanam xeex door leen rey ci ñu ñëw ñu war a rey rey laa wax ma répété ko rey tànk defu leen ko gañeegu leen gaañi bu leen di fecc prépare leen seen jaas yeeg seen fetal yeeg seen fitte yi yéen leen man nag bu leen tiit waaw yéen leen man kon gaañu baax ñii ma bañ a yàgg ak yéen lu tuuti rek laa bëggoon a waxtaan waaye xaw na gudd kon ma di leen yëgal ne incha allah aljumaatal mubarak assalaamu aleykum wa rahmatullahi fiikum wa aleykum wa barakaatuhu jaa ngeen jëfat jaa ngeen jëfati